am na ci benn xaalis boo xam ne dafay wax ne sax même bu fekkee ne dafa toll ni tànk picc nga tabaxal yàlla yàlla dina la ko tabaxal ay yéeg kër ëllëg ca am kon bu fekkee ne defatal nga suñu borom bi borom subhanahu wa taala kon yaakaar nañ ne loolu ay villa yi villa lay doon kon nag jëm ak yàlla ma teg ci ne fa yàlla te ne man de tool yi ak yi xartal ma ne maa ngi yéemu ci iraada boo xamante ne yow sa xol ndaxte mooy tiraanga boo xam ne Fatick képp mu ngi bëggoon mais yow ci yàlla la ko yàlla jaarale nga def ko kon kàddu yooyu muy kàddu yu gërëm yoo xamante ne ci maam santoon nañu ko mu jëlee ci moom teg ko ci sa loxo waaye teg ko ci képp koo xam ne jàpp na ci liggéey bi waaye tamit teg ko ci képp koo xamante ne taxaw ci liggéey bi ba taxaw ko moo xam maçon la wala ñu ñu doon defar yëpp ku ci nekk rek sant moom mu ngi dem ci kanamu imaam imaam nee na loolu xam na ne nekkul lu bees parce que bu fekkoon ndax ko def Fatick rek kon dina Fatick loolu lay waaye këru diine yi fépp foo xamante ne dem nga fa da ngay gis jeexital yooyu dañ koy gis kon loolu ñu ngi ciy gërëm bu baax a baax ak li nga xamante ne moom nga taxawoo daara yi muy daara bu ko jàpp di Allah القلوب والأبصار كلما أيها المؤمنون أما هذه الآيات الكلمة المرأة كلمة تظهر في النار رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسجد

Ibrahima Soukandeela Diouf dëkk Fatick. waaw lan nga xalaat ci inauguration bi tey mosquée bi nga xam ne ni président moo ñëw euh, jëmmal ko tey. waaw ñun de dañ sey am mbégte ndax euh, ñun ay jullit lañu te édifice bu mel nii ku ko tabax ci dëkk taaral lislaam la kon en tant que jullit déjà ñun loolu satisfaction bu mag lañ ci am. beneen satisfaction bi mu si am mooy bi ngeen xamee ne njiitu réew mi si boppam ñëw na di ko inauguré ndax jàpp nañ ne moom si dëkk bi la juddoo doomu siin la kon édifice bu mel nii bu ñëwee yeggali ko ñëw di ko inauguré dañ si am lu dul contenté ndax wax dëgg yàlla lii bokk na si li nga xam ne doon nañ ko xaar si moom te def na tur bi Kori jon laa tudd. waaw lan nga xalaat euh, ci inauguration bi mosquée bi nga xam ne président Macky Sall moo ko fi jëm. bi dañ ciy sant yàlla sant ci yàlla lu bëree bëri. parce que boo leen amee njiit mu dem yore Sénégal yëpp gëstu xalaat dëkk bi mu nekk ñëw def ci mosquée bu toll nii muy juma yaakaar naa ne ñun ñëpp dañ cee war a sant yàlla rek di ko ñaanal fi mu bugg a yóbbu Sénégal yal na ko fa la yóbbu jërëjëf. merci. bi man la Moustapha Dione som présente d'abord Moustapha Dione dëkk quartier Pëlga du sant monsieur le président de la république li mu defal ni honneur la ci ñun ñu ngi koy sant di ko gërëm. vraiment jumaa ji rafet na bijou la ñun ñëpp kontaan nañ ci yal na a guddal fanam may ko wër ak njabootam may ko première dame may ko DG may sama école Diouf may ko tout le monde ñun ñëpp kontaan nañ. waaw suñu xol sedd na sedd na guy ci li ñu li ñu président de la République defal suñu xol sedd na guy ñun ñëpp kontaan nous sommes très contents nous sommes fiers d'être sénégalais kontaan nañ ci monsieur le président de la République suñu xol sedd na guy. nanu liggéey bi liggéey bi rafet kon waa Fatick kontaan waa Fatick yëpp a kontaan <laughs> waaw dëgg yàlla Fatick yëpp kontaan nañ.